ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax fii ci arène nationale incha allah gis ngeen ñaari champion yi nga xamante ne bii moom laa taxawal Jax production def lu rëy ndax Jax kenn dootu ko présenté ci wàllu làmb heure bu taxawalee komba amateur yi kontaan heure bu tëggee amateur yi kontaan moo taxawal combat bii ngeen gis diggante Ibou Ndiaye Obali ak ngeer bu Zap wala ngeer bu. wàqi naan mi ngi noonu wante balaa boobu le 22 janvier dafa def lu rëy diggante Liss Ndiago. ak ki nga xamante ne bii moom mooy ardo di combat bu amateur yi xaar buñ ca jógee beneen weekend ba le 29 mu tëgg lit simple lutte simple nag yaakaar naa buñ koy wax fii ci Sénégal am na borom mise bu mësul am 11 million kon yaakaar naa mbër yi. defaraat defaraat defaraat leen bu baax a baax seen ngemb te incha allah ñëw fii ci arène national le 29 janvier incha allah ci 11 millions yi Jax Jax production kenn du moom. wante dañuy ñëw ci li nga xamante ne bii moo ñu fi andi tey ngeer bu sab di champion di ndaanaan bëre ak ndaanaan yu bëri ci làmb ji tàkku tàkkusaan bu nekk ci làmb ji yaakaar naa incha allah dana ñëw waxtaan ak moom léegi waaye bu Ndiaye Obli di xele am fulla am fayda am jom am fu teg bëtam. lit simple moom tamit mu def ci lu bari wane ci ay preuve am biig rek wane na ci lu baree bari fële ca yaayam macha allah gis ngeen nam fa def di jaaju di matt ay saaku mi ngi noonu. ayca damay commencé ci ki nga xamante ne bii mooy Nguer mun nuyoo ak mbokki internet salaamaaleykum Nguer. waaw maaleykum salaam onze billahi mina seytaani rajim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant di wax jërëjëf Serigne Touba. di sant suy ñaari waajur di nuyu monde entier di nuyu waa Sénégal di nuyu suma adversaire Ibou Ndiaye Obali euh, di ko wax mention spéciale xam nga di la nuyu yéen yéen journalistes yi di nuyu Ami Collé di nuyu Jax production Jax production di la nuyu waa Leewtoo di jaajëfal àdduna di jaajëfal waa Sénégal rawatina waa Pikine dafa am bor nag boo xamante ne dama leen ko amal te dama leen ko war a fay incha allahu rabbi danañ ci ñëw ci kanam ay ca Obali. waaw ginnaaw bu maa ngi nuyu ñëpp. di sant journaliste yi yëpp di nuyu suñu promoteur bi Jax di nuyu suma adversaire bi suma grand frère Nguer waaw di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax xam nga waaw di ko di ko gën a sant di ko gën gërëm parce que gars yi bëggoon nañ suñu combat ñoom ami koogee promoteur yëpp dañoo wër adversaire ba sonn gars yi di daw de gauche à muy grand frère muy ku am jom xam nga xam ne làmb temps ga te liggéey ga te am na mbër yoo xamante ne nii tey dañoo war a roy ni moom mais toog suñu la waxee mbër nga bañ ko jëg soo xëyee soo sa daag di wër bureau jàmbur yi di fëgg di ñaan xam nga kii defu yow dafa am fuga am fay fayda am jom ñëw jël avance bi pour bëre lépp gum si am rek ñoo ngi ñaan suñu borom defara ko jàmm mu muur muurloo ko parce que làmb ga rek que nga meilleur gan ni ma ko mënee daan noonu nga ma mënee daan di ñaan suñu borom suturaak ñu bés ba rek. dégg nga ko nee na jël na avance bi mais dafa ameel ay supporteurs am bor. Mhm. waaw non bor bi moom fii bu baax <laughs> waaw bor moom du fii nga koy fayee waaw mais di ñaan yàlla suñu borom rek xam nga waaw euh, amul programme quoi waaw am na sëgum jógee. gaynde gunu gaañ la. benn programme waaw na gën a liggéey rek entraîné ji te xam ne Ibou Ndiaye moom 24 heures sur 24 day entraîné Ibou Ndiaye mu ngi si compétition yi waaw Ibou Ndiaye mu ngi toog di xaar jour combat ba jot ñu ñëw remplir suñu contrat waaw. nee na moom kenn du ko fayee bor de. waaw waaw mooy li may wax rek xam nga ñëw sama gaale def benn émission ma wax la tey moom ndeysaan ku ñàkk ki ñaan la wax na ko ne ñun ay nit ñu am jom lañ taxawuñu si bureau kenn wala si mairie kenn di ñaan. xam nga li am solo mooy àdduna boo tollee ci liggéey nekk ndaw liggéeyal man bëgguma lu yomb wax naa la ko te dafa mel ne loolu la suñu borom di confirmer tey tey Ibou Ndiaye champion la boo xam ne ñëpp dañ ko fi bàyyi tey fi mu toll affiche bu doy waar la affiche bi sax moo gën a graaw grand combat parce bu buñ ko déggee dañ ne non mais ngeer lu muy defati nii mais Ibou Ndiaye dinañ ne waaw dinañ waaw jóge si ay xës dugaat ci ku gën a dee mooy li ma la man sama adversaire sama àdduna bëgguma lu yomb parce que du taxaw di tàllal kenn loxo moo tax tey ku mel ne ami collé mention spéciale jigéen ju mën góor moom dañ koy ñaanal yàlla parce que c'est une femme battante parce que tey bi ma woowee wallahi azim bon wax nañ ci wax bu gàtt rek mais dama xam ne jigéen ju mën góor la moo tax dama dama beese sama loxo bu baax pour jàppale ko moom parce que bëgguma muy ut di ñàkk comprendre nga mu nekk champion boo xam ne ndaanaan la def na lu lu ne ci làmb ak lutte professionnelle tey la ko yàlla dogal parce que tëggoon nañ suñu combat muy ale maa ngi koy jaajëfal mu am mu demee moo tax combat bi mujjul antu mais fii la ko yàlla tuddee li am solo rek mooy ñun dañoo war a joxe un bon exemple mooy lan wax lu tuuti jëf lu bari mooy comme li ma wax liggéey nekk sama recours liggéey mu nekk si roxam liggéey jour ba mu ñu jëflante wane wane wane wane wane jom wane ful ne wala fayda yàlla nañu yàlla suturaal mais ak li nga li nga ce que jël Obeuly du risque ci yow man nee naa la man su ma lépp lépp risque la boo risqué wul dara doo am dara man su ma live yëpp yëpp nee naa la mooy li mu wax dafa wax wax boo xamante ne wax ji dafa tëju mooy ñu nekk ñu ay mbër yoo xam ne dañuy taxaw di tàllal loxo liñ gëm mooy dañuy ñafe bés bu nekk ñu bés du rëy si ñun parce que bés bu nekk am nañ ko bés bu nekk am nañ ko léegi li ñuy ñaan yàlla rek mooy que jour bi yàlla defal ko jàmm defal ma jàmm yàlla may ñu ndam incha allah. nee na nga entraîné bu baax de. waaw daf maa dolli jom. loolu kañ boo ko waxee mbër mooy am na lu fi nekk moo tax mu may ñaax ne dama war a antal parce que dafa bëgg bu ñu ñëwee simeeku ñu xam ne ay mbër simeeku nañ te bu soobee yàlla loolu dina am incha allah. bu soobee yàlla loolu dina am obli mu mel ni sa grand frère ngay bëreel moo la jiitu ci làmb expérience la contre la jeunesse. lan la ñu mën a xaar incha allah jouru làmb ji obli lan lay andi obli bu bees la ñuy gis wala obli ban doon gis la ñuy gisaat. waaw di ko sant di ko gërëm rek parce que xam nga moo tax làmb dafa nekk loo xamante ne nii dafa commencé sooxe parce que mbër yi tàppet dañoo bëri ami kooga mii bu ko waxoon ñaata mbër lañu woo. ah kon ñun ñun la dafa bari. ñu waaw yow doo ma bàyyi ay ñoom Jordan ay ponk ne nii jaral na ñu xëy sax di am ay programme ak yeneen mbër yoo xamante ne du ma sax wax seen tur ponk yu toog noonu nga xamante ne nii yow toog nekk 2 mètres di peser ay ah, suñu la nee jëga combat au bëgg ngay naan fii nga xari jaara fee nga bëy daal mais ngeer moo ñu may sens waaw man moom moo ma may sens di ko sant di ko gërëm xam nga di ko jox wàccuwaayam di ko jox cër ak respect combat bi nag xam nga di si woo ñëpp waaw képp kuy yow xam nga ne stade bi séeréer yi moom woote teel na de waaw woote da ngeen war a a war a waxante yeen ñaar waaw combat bi lan lañ ci mën a xaar bëre xeex non non combat moom ngeer moom li ma ko mën a xamal mooy ngeer moom arbitre bu nee prip hmm. damay dox si kaw ah waaw ngeer ngay bëreel de waaw ngeer ngay bëreel te xam naa ne ngeer jàmbaar moom day taxaw xeex mais arbitre bu nee prip ngeer man maa ngi ci kawam dinaa mel ni oto bu camion bu amul si kawam waaw moom nag moo xam nu muy résister googu ak nu muy gëjantee mais man bu arbitre prix maa ngi ci kawam fu mu taxaw dama koo fay fekk. nera foo taxaw mu fekk la fa de. waaw boo woowee naar si guuxum soow da koo dimbali rek. da nga koy na sant yàlla am na lu ma la waxoon sama gaale boo seetaanee suma combat yëpp damay am wala ma ñàkk mais arrière un pas du am kon boobaa dañuy dalante parce que essentiel day am incha allahu rabi moom xale la dinaa ko won ne nag fi mu dal moom tamit baaxul. étincelle la fi fekk bu soobee yàlla dañuy talante bëm. mën nañu xaar ngeer sul tànk lu ne mën naa ne. moom daf maa dimbali nee nga daf maa avertir ne ma benn bi mooy deuxième fois mu ne fu mu nekk dinaa ko fekk te borom jom lay waxal. kon nag tey tey tey tey tey tey tey maa ngi woon samay entraînement mais su ma doon def benn dinaa def téeméer ndax moom ci kàttanu yàlla parce xam naa ne champion la te di di nelaw du ko daan. parce que ndaanaanu ndaanaan la kon lépp lu ma mën a def tous les pour mën a am indi doole indi kattan danaa la wax benn affaire de Nguer bu amee doole am kattan kenn mënu ko si làmb ah, te lépp lu mu jar pour ma am ko dinaa ko def si kattanu yàlla incha allah combat bi jaral na la lool waaw li may ñaan rek di ko ñaanal sama bopp moom laa koy ñaanal muy wër di ko ñaanal sama bopp yàlla ñu yàlla may wëral ba ba jour ba yàlla may ma ndam incha allah mën ma la moom daf maa dimbali parce que maa teel a wax li ci boppam kon loolu bépp arme boo xamante ne mooy indi ndam rek war naa ko mën a teel a préparer incha allahu rabi mooy lan entraîné indi doole te bu bés baa ci kattanu yàlla bu ma simee ko dinañ xam ne beneen ngeer ñëw na incha allahu rabi. mën nañoo xaar ngeer niwlu. jeex na tànk yaa ko wax non noonu lay demee sax parce que adversaire bi moo jar lool. mais xale bi nga jël dafa jër safara la. gaynde la gaynde gu tëx la gaynde sibi la non ndaanaan la loo wax ci moom rek bàyyi nga lu des ci moom mais man damay bëgg di bëreeg ndaanaan parce que boo bëreeg koo xam ne yaa ko du mbër boo ko daanee ban sens lay am mais boo daanee ku mel ne Ibou Ndiaye bi bu waay waay fi mu toll ñëpp dañuy dar gémmiñ te loolu li la koy jox mooy liggéey bu mat sëkk xam naa ne du ma may dara te su ma ko daanee damay xam ne man mbër laa daan man bëgguma daan mbër ñu naan noor ki mu daan du mbër mi ngi noonu nee na bëggul daan ka xamante ne bii hmm. mbojo mbojo bëgg a daan champion moo tax mu jël waaw non man moom wax dëgg yàlla ngeer bu ma buggee daan moom xam nga nu muy def day dem ba moo xam te Lac comme ñun fi ñuy yéegee ay din hmm. mu dem ut fa néeg nga des si combat ba yëpp. bu bu bu mu gis kenn bu ko kenn gis na fay téléphone am yi di liggéey ba jouru combat ba parce que Ibou Ndiaye moom ku am ku bëri doole moo koy daan. Hmm? waaw il faut nga yor doole ju wóor. am na doole de. xam naa ne grand am na doole mais grand bi moom su ma jàppee si catu weeyam sax day am programme. <laughs> ah bon grand ma jàppee si catu sax day am programme. waaw di woo nag di woo di woo di woo di woo di woo di woo ñëpp xam nga di woo suma suma suma képp kuy bëggee Ibou joof yoor hmm. xam nga di woo suma waa dëkk waa Diofior xam nga di woo waa région de Fatick di bëggee séeréer yi fépp fu séeréer nekk di bëggee Ibou Ndiaye Diofior maa ngi koy woo di nga naan li ñu doon am na muy combat parce que fan si fan si xam nga yow gis nga public bi simple bi fu ma jëm dañ may topp xam nga dañ ma daan topp Ibou Ndiaye da nga war a am combat da nga war a am combat combat am na nag suñu grand frère Nguer may nañu sens di ko sant di ko gërëm xam nga di ñaan supporters yi amateur yi nañ préparé incha allahu rabi public bi gars yi di gis simple bi ñooy ñëw stade incha allahu rabi dinaa duy stade ba fees jënd billet yi di nuyu euh, autorités yi may jàppale yëpp xam nga ku si mel nii suma grand frère suma xarit euh, Papa Kori Faye Go Faye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm maa ngi koy woo si combat bi borom parcelle borom mouvement réaction xam nga di woo MEF xam nga di woo Demba Soare di woo kilifa yi may jàppale di woo waa Dubaay ñoom Xaadim ñoom Koojoon di wax euh, diaspora bi séeréer yi nekk si diaspora bi yëpp maa ngi leen di naan xam nga euh, bu Ndiaye am na combat nañ commencé sama grand maam waagi joom maa ngi koy woo doomu Moussa Gamer Youssou Diom ak Karim Sène Moussa Gamer maa ngi koy woo si combat bi maam waa bi sa combat ga bëgg naa nga jënd ma sa ay billets xam nga Ousseynou Fall France mook jabaram xam nga maa ngi leen di nuyu bu baax di ngeen Fatou Bass maa ngi leen di woo si combat bi ngeen ñëw jàpp si autorité yi nekk Diofior yëpp ñoom satu Koumba maa ngi leen di woo na ñëw jàpp si combat bi bu baax a baax waa Diofior na ngeen jug te xam ne seen doom moo xew ge fépp fu doomu séeréer nekk waa défoncé séeréer yi dawakatu sareet yi sama gars yi mhm. mafia bi ñoom daaw da su ma waa koñ waa intercept waa parcelle 1 ba 26 maa ngi leen di woo di sant suma waa écrit bu baax a baax di woo ñëpp xam nga di woo di di woo ak ràmb di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais mais ana nag yi waaw nag ñu ngi ngeer sax jour combat bi maa koy jox nag bi muy rey ah incha allah rabbi ah, loolu na loolu sama xol sedd na si bu baax xam naa ne lépp lu mu wax moom dina ko def parce que nitu la Eh, maa ngi sant yàlla bu baax di woo pikin Pikine di woowaa waa di woo waa Sénégal yëpp ah rawatina monsieur le maire Isaaxa Jibi la xam nga rawatina maa ngi woo monsieur le maire euh, Wal Joojo di ñaanal di woo Xaadim Lamine Kane di woo suma mafia bi télé bu mag fi mu dëkk ak waa Pikine wasalaam yàlla yàlla defal ñëpp jàmm di wax jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rahim Fall. jaajëf Aïcha mi ngi noonu kon du ñu def rek lu dul woo promoteur bi nga xamante ne bii moom mooy Jax moo taxawal événement bi Jax. nga ñëw rejoindre ñu ci euh, plateau bi ñu waxtaan ak yow surtout ci diggante le 22 ak la euh, le 29 ay ca ngeer waaw waaw rawatina suma booy waa écrit Wakhinane mm. Seydou ku mel ne booy guy gi ñoom jaxasoo ñoom Fare Maren ñoom alias Balde vraiment boo yoo booy lañ quoi surtout guy yi suma frère la yàlla na leen yàlla may ay combat defal leen ndam parce que booy loo xam ne maa ngi ci écrit mais vraiment père sax lañ may woowee te pourtant maguma leen kon loolu si rafet jukko la bokk kon maa leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal ñëpp di ñaan tamit kilifa diine ak kilifa aada mi yàlla def fi jàmm mention spéciale mention spéciale Jax jaajëf jaajëf Jax combat bi nga taxawal amateur yu bëri dañ ko doon xaar amateur yu bëri bëggoon ko. est-ce que taxawaloon combat bi yomboon na. combat bi ñii ñoo ko taxawal man xaw ma dara ci combat yi. man man lutte simple suma affaire. Ami Collé moo ko taxawal ñoom Ami Collé ñoom Idi yii ak ñoom i aas yooyu ñoo ñuy taxawal affaire yi man di xaw man man laa rek. ok waaw mais taxawal nga koom taxawal nañ combat bu neex. waaw ay champion lañ nag moom. Mm. waaw nga jëm ci nga jëm ci mën nañ wax ay journée yu bëri. le 22 ak le 29 ak le 29 waaw. Mm-hmm. waaw le ñoom. Euh, liis njaago la ak ardo waaye li ci biir moo garaaw caatu ay ci biir alaaj alaaji njaay waaw mhm. sox sox mu ngi ci biir euh, kii a ngi ci biir euh, boy maroon mhm. petit seleng ci biir baabu saar jof yoor mu ngi ci biir cee mhm. mu ngi ci biir ak kanati ak mbin ngaaj mbin ngaaj yi ngay wax boy petersen mu ngi ci biir ak yeneen boy garaaw waaw foofu incha allah le 22 fii ci arène nationale waaw. grand combat bi mooy Liss Ndiago ak Ardo Liss Ndiago Ardo. Mm. ñooy grand combat bi mm. waaw. le 29 nga def nga nga def lu kenn ah, mësut a def. non le 29 dañuy toj dëkk bi maag Yaxya kooku moom jarul wax ñii ñëpp xam nañ li xew ku nekk yaa ngi làqu di defaru di préparé. Mm. bàyyil ba affaire bi démarré rek. waaye rëg-rëg bu ñëwee gars dañ koy tër bokkatul amatul compétition. ah bon. kii xam na li ma koy wax <laughs> lutte simple la ñuy def lut simple da ngay bëri ay. kon da ngaa bëgg ma ne Reug Reug bu ñëwee maa ko wax yow Reug Reug boo ñëwee dañ lay daan. Eh. booy yi dañ lay defal af bagage ñaari nit ngay daan ñetteel bi ñu tër la signal sa licence nga ñëw. <laughs> incha allah le 29 nga teg 11 millions tegal ko euh, mbër yi amateurs yi lan ngay xaar ci ñoom. ah amateurs yi xam nañ leen war. Uh-huh. jag si moom du woo kenn day ah, da lay defal événement bu rëy nga xam ne yaa fi ne ñëppay ñëw bu soobee yàlla. Uh-huh. derul woote. ay ca kàddu kontaan ci yéen bu baax ci liggéey bi ngeen di def kontaan ci mbër yi di leen ñaanal jàmm ak wér ba ca bés ba di leen ñaanal yàlla may leen ñu leen jàppale bu baax parce que làmb dafa metti te ñoom amuñu doole noonu te ñi leen topp dafa bari préparation combat metti bari frais autorités yi ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale xale yi bu baax ci ci ci kaar ya yi àndi xale yi jàppale leen ci ci ci ci bi billet bu ko defee mu nekk événement bu rëy jàppaleen aussi ci préparation mystique baak préparation dund ba ba booba parce que mbër dafa war di lekk bu baax di récupérer ndax combat arène ak combat simple yëpp dafa metti bëri ci boppam moo metti alors autorités yi nañ leen ñëw jàppale xale yi loolu la leen xale yi bu ñoom bu ñu xewlee xale yi génn donc bu xale yi xewle dañu war a ñëw jàpp ci loolu c'est le minimum voilà ñun mënuñu lu proposer événement mais xale il faut ñu encadrer leen. pour que pour que jàppale leen pour que pour que yëf yi di gën a rafet. di gën a baax. Mm. bu ko defee ñeneen ñi gën a am courage. Mm. waa lutte simple boo gisee ma leen di tëgg man comme maay maa nekk ci lutte simple bi dama bëgg xale yi di génn. Mm. ñoom tamit ku wane sa bopp yeneen promoteurs yi sama moroom yi. gis leen mun leen jël yóbbu. man fi ma ne rek laa ne du ma fa dépassé de. waaw damay génne gars yi rek jox leen gars yi jëlaat ñeneen booy andiwaat. waaw loolu mooy sama rôle man. yaay booy. voilà dama leen di promouvoir pour ñu dem voilà. <laughs> di leen gërëm di leen sant. di leen jox rendez-vous le 22 d'abord. Mm-hmm. ensuite le 29 pour un super gala de lutte simple ici à l'arène nationale. Mm-hmm. merci beaucoup. ayca mi ngi mm-hmm. nañ gën a jàpp ak a jagsi bu baax a baax a baax a baax. u fogoga seereer maxey gidma nuun simna nuun a paax yakara nuun jak si fata nuun moƴ nuun tamit yaam ka damta too to ka ñaaƴna njom Jaks na ko séeréer yëpp jàppale si wépp gu mu taxaw nañ si taxaw jàppale ko parce que ñun doomu séeréer yi tey moom moo ñuy sigil du ñu jàppale na ko na ko état bi tamit teg loxo parce que bu du woon moom ñun ñii nii nii kii si wépp gu muy liggéey dañ ko war a dooleel parce bu du moom ñun ñii mun nañ dem defi leneen mais mu ñëw jël ay moyen def si te xalaatu ndax dina si perte def si ay moyen ak équipe am bi yëpp état bi nañ jàppale genre nit yi nii millions yi ñuy jël di ko jox ñenn ñi ah ñu siy def leen neex ñu kii nga ñu war a jàppale kii moo méritoo loolu parce que mu ngi génne ay doomu jàmbur dem te ñu ne si biir àll bi di rayante di mbapat di di di rayante te mënuñu am dara mu ñëw di leen indi di leen boole si biir euh, système bi kon kii état bi daf ko war a jàppale di ko sant bu baax suñu père Jax di ko gërëm di ko ñaanal wér ak gudd fan. ayca ayca mi ngi noonu sama gars yi mi ngi noonu diggante Ibou Ndiaye Obli ak ki nga xamante ne bii moom mooy Nguer sama gars yi rendez-vous incha allah le 22 bu leen ko fàtte vente tamit le 29 bu leen ko fàtte incha allah merci beaucoup ami Collé Thiandoum merci beaucoup Jax la dame de fer ami Collé la battante jigéen ju mën góor la jàmbaar la gaynde la jàmbaar